du ñu nangu kenn am na loo xam ne mu xëy nit ñi gënati ko nag sam ne ay yamb hmm? mu xam ne boobu dootul sotti mu bàyyi mu indiwaat beneen beneen toog naan du ma du ma rendre compte benn journaliste ñun peuple bi la ñuy waxal waaw moo ko wax loolu est-ce ci droit léegi nag attaques yi tar na metti na tàng na <laughs> ko génnaat ca ca coowal xale ya ah. ne ne ne xale bu ñu yar waroo toog ci internet bi di saaga di xas xam nga rek mafia bi <laughs> commission recensement des var dukkati ci réseau yi dajaleel ko waa vaaram yeeg saaga yi mu doon saaga nit ñi xas yi mu doon xas nit yëpp jàllal ko ko muy xoolaan ci réseau ba pare tegal ko ci ay question waaw daan ne Sonko nee na ku ñuy yar waroo def lii waaye kon Sonko moom est-ce que yar nañu ko gis nga biñ ko ci tegal ngeen teg audio bi ngeen teg vidéo bi vidéo yi lañ ko rangalee ba pare bindal ko ci suuf parce que wax ya nag rafetul. wax ya dafa ñaaw jéggi dayoo. Mm-hmm. mu xam ne boobu tamit passé wu mënatul nekk mu ne leen yéen ñi ngeen di invité ci télé yi <laughs> ñuy saaga. ñu xolaat ñu xolaat ñu invité si moom moo ko wax. moo leen euh, xolaat ñu ñu euh, invité wala soo nag plan bu mu teg ah, ah, foofu nag foofu vraiment. sama waay ku doy waar la. Eh, eh, invité ñu koy saaga. nag ku doy waar am na gars yi amul moor Sonko vaar bu amul moor boobu ñuy wut ambulance di ko teg ci bu bu bu ko vaar parce que lii gars yi fi ne nii dañ koo teg soog dañ koo jiital teg ko soog waaw ah. gis bi mu waxee loolu ba pare naan ñi ñuy invité léegi nag ñooñu ñooñu muy teg sa baaraam man xam naa ne ci laa bokk waaw <laughs> man xam naa ne lu ma am ci àdduna moom lu mu am ci àdduna ma bàyyi wax jee ko ko gënal wala am na ndóoy wala ñoom Adama wala ñoom ah, ah, Abou Diallo gaa yooyu lu ñu am ci àdduna ñoo ñu jëndoon glace bàyyi mu sedd ba ko mu déroulé lan la ko tapis rouge lu mu am ci àdduna looloo ko gënal Sonko bëggul critique mu ne waaye ñu ngeen invité ñuy saaga nguur gi mais ñun dëgg yàlla kan moo fi saaga nguur man de gisuma ko fi saaga saaga nguur gi waaw bu dee nag Bamba Cissé moom ak ñoom Sonko dañoo gis ne vaar bi ay saaga la ñoo tay de loolu moom leer na. maanaam andi ay vaar waxu démb. bu dee vaar bii ay saaga la ci laay dëkk de. du ma ko ba mukk wax lu waxoon daaw daaw jéeg de. waaw loolu da fa ah, de. bu la du mu ci du crime du délit ci laay ci man moom fi ne ni ci wax li mu wax moom. merci ko daal fa naa. léegi xam boobu jàll. ban jàll ak lan ma ñëwaat. mu indi bu mujj bi. mujj bi seen plainte boobu ñu annoncé. ak seen article bi parce que indi nañ siis yu bees ne xaaral ñu ñu napp leen ci Madiambal Diagne liñ ko commencé biñ indee juge yu bees lañ bind seen communiqué boobu communiqué di fontoo nit ñi ah, naan d'accord ci naan waaw justification yi danañ perte plainte Madiambal joxe dat démb man gisuma benn plainte altine 12 démb la woon waaw altine non non barki démb la ñu wax nañ porte peut-être altine waaw ba tey wax gisuma benn journal ko Madiambal Diagne gisugul ko kenn gisugul xañ na peut-être dañ ko yóbbul ci yóbbu ko ci avocat wala jox soxna wala jox jox ci fu muy baax parce que ñaare parce que ñaare boo fa dugalee plainte rek automatiquement ñaari information bi day génn kenn gisagul léegi ñu teg ci ci texte bi ne ñu yem sax ci ma Madiambal ci la ñu commencé. waaw ñëpp ñu attaqué attaqué le président du parti képp koo xam ne yaa Sonko. le président te attaqué woo ko en tant que euh, ci liggéeyam. waaw bëgg ko attaqué en tant que nit. dinañ la yóbbu ci yoon. waaw loolu dañoo ko wax. yaakaar naa bokk naa ci ñi njëkk gi def sorti fii laa ko defee ne Bamba Cissé na xam boppam bu bëggee loolu na wax Ousmane Sonko mu démissionné ci parti bi def rôle le premier ministre boobaa yem ci képp. te ba pare bu demee bay porté plainte na porte waale plainte gémmiñu Ousmane Sonko bi parce que Ousmane Sonko benn noon la am. mooy waxam li muy wax mooy noonam. noonu loolu nga jàpp quoi. amul beneen noon da nga fay dégg da fay dégg ku nettali lu bees. ci waxu sonk ku wax ba daaneel lu muy wax sonk nee na. waa de moo ko fi waxoon. jeex na koo ci porté plainte bu àggee ci baar bi lan lay wax procureur bi Sonko nee na. légui nak kooku bu fekke yow sa client nga pour nga dimbali ko. Mhm. da ngay fexé mu tëj gémmiñam jema nopi noppi. soit nga wut escorte. est-ce que nit ki doo ko topp jar est-ce que topp nit ki ba mu sës yi nag. bëgg réew mi la maanaam sonku ngeen top ko ni ngeen ko topé di ko bàyyi wax ji non du bàyyi wax ci na waa dañ ko fal. na waa na waa Pastef nañ ko fal nañ ko namee ko. non xaaral nañ wut seen ci mu dem ci menuisier métallique yi ñu teggal ko li moy loolu ñi defal fas yi ni waaw. mënu nekk moom. kon day pare waxul wax réew kon day billaay pareeguñ. du gouvernement mi waxul wax ju bari est-ce gis nga gars di dal ci kaw bu bari. Euh, waaw d'accord euh, loolu c'est la vérité. xam nga Diomaye moom chaque sortie sax. mais Diomaye ak sortie sax mu wax loo xam ne da dar génn mais ay sortie mi yamale na ko. Hmm. mais kii nga xam ne mbiram lacc mu génn. mbiram lacc mu génn. léegi dañuy ñëwaat ci sujet bi. nañu escorte rek d'accord.